ma nga takkal ma ko Mansour kaay nga takkal ma ko bul fa fanaan nag loolu ngeen yëgoo yaag Mansour Mansour bu jotee ndaw si rek loola njaaro lañ koy àtte am naa ndaw si yëgul dara amu ci benn bakkaar mari mat leen du ci am benn bakkaar tubarkalla noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala tëral kon fa in tallaqaha fala taxillu lahu baadu min baadu xatta tankixa zawjan gayra fa in tallaqaha bu ko kii ko baada zawji tak fasee dégg nga boobu dem fala junaaha amul bakkaar alayhima cam diggante ndaw si ak jëkkër ju njëkk ja an yatarajaa ñu takkantewaat ñu fay leen teeti in zanna buñ yaakaaree ñoom ñaar an yuqiima ñu taxawalaat xududallahi ërdi yàlla yi su boobaa takkante ba day wér wa tilka xududullah lii nag mooy atte yàlla yubayinuha mi ngi koy leeral li qawmin ci nit ñoo xam ne yaalamuuna daañu xam moo tax jàng fiq baax na lool waaye jàng fiq bii moo ci gën waaw jàng fiq bii seetet baax na lool waaw baax na lool ndeysaan ndax léeg-léeg nga toll ci soxla ko waaw di wër borom xam-xam yi te du sotti way way saa tallaxtum acca way saa tallaxtum bu ngeen fasee an nisaa jigéen fa balax na ñu jege ajalahunna seen app idda jee bëgg a jeex fa gaaw leen gaaw am sikuhunna téye leen bi maarufin ci njëkk ndax bu jeexee kat da ngay sant aw wala boog sarrixoohunna ngeen taxalikoog ñoom bi maarufin ci njëkk wala tumsikuhunna bu leen leen téye ci kër gi diraaran ngir bëgg leen a lor li taatadu ndax ngeen jalgati rëdd yàlla yi ku ñuy wax maqal ibnu yasaar dafa tekkoon dafa maye woon benn rakam benn waaye ci jullit yi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daal di koy fase léegi nag fayliwu ko ba idda ja jeex mbokk ko labataan ah waa ji nag ne ko dama laa teraloon may la sama sœur nga toroxal ko giñ naa ci yàlla duma la ko delloowaat mukk yàlla tabaraka wa taala indi atte buy wane ne ndaw si góor gi sañ naa jotaat ci moom ndax idda ji jeex na waaye ba léegi am na sañ-sañu takkan loolu lay wax ne fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi maaruf aw sarrihuhunna bi maaruf boo yore jigéen yor ko ci njëkk boo koy wacc wacc ko ci njëkk wala tumsikuhunna bu leen leen tiye diraaran yor jabar ci kër gi fase booba danga naan fase iddi ji bëgg jeex nga takkaat waccaat iddi ji bëgg jeex fii ba fanweeri yoon kenn sañu koo takk moo tax bi ko yàlla limité ci deux jigéen ñi daal di am jàmm booba da ngay def ni rek ndeysaan faj wacc mu jàpp idda ndeysaan ba iddi ji bëgg jeex nga takkaat boo takkaatee wacc mu jàpp idda muy bëgg jeex nga takkaat nga xam ne fii ak fii ak adduna tukki du do du doon jabar du doon lu kenn xam yàlla mën léegi tii ci njëkk mbaa wàcc ci njëkk rek waaw li taatadu wa man yafal zalika ku defati loolu gàllankoor jigéen ba munta sëy feneen faqad zalama nafsahu tooñ na boppam ku ko defati tooñoo ndaw si sa bopp nga tooñ waaw danañ koy def léeg-léeg wàcc jigéen ba noppi bañ keneen takk ko déedéet boo wàccee rek bàyyil keneen takk moo tax bokk na ci tooñ wa ci jigéen ba noppi di wax ay baat ca moom naan ndaw si daa naqari dara toggam daa neexut dafa bëri dox yàlla mu ne sa yoon nekku ci wacc nga daal bàyyil geneen góor takk moom waaw ndab li daal comme yow bëggoo mos nga ceeb bi weex na xorom suur nga jógal beneen waaye mën naa sukk moom muy xorom sax waaw noonu la jigéen ñëpp noonu la jigéen jooju seen muy wax rek am na góor goo xam ne gii fi ne su amoon xaalis kooku lay tekki waaw noonu la yàlla dogal góor goo fi seen muy wax lu mu ñaaw ñaaw ñaaw am na soo xam si daan ay waay kii su ma tekkoon loolu la yàlla dogal dara nga ci mënul nag dara nga ci mënul moo tax yàlla nee na bu leen sikkal kenn booy sikkal nag ba far góor ñi bëggatuñ ko yàlla mu ne faqat zalama nafsahu tooñ na boppam kon bul sikkal kenn bàyyi rek lala ci naqar yi mën na caa neex keneen wala tattaxisu bu leen jàppee ayatillahi luwaay yàlla yi husuwa foyekaay bu leen di foye aay yàlla yi mooy jàng leen fase ba xam ko xam nu ngeen di fase ak nu ngeen di fayle ayati ayatillahi husuwa waskuru fàttaliku leen ni'amatallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen góor ñi mu ne ah mu ne fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër baayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla muural la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee nga bu mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi jot mu lalal la sa néeg tàll cuuraay jàll sa ginnaaw di la wax wax ju neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah googu xéewal day war ngeen saa su nekk ngeen ma ciy sant ndax góor gi gën a ñàkk solo ca kër baayam sañoo dem ne may leen ma ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër baayam moo ci defoon trois millions ñi ma wën ne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wéra di te jigéen ji moom ay deux mille cinq cent ci trois millions rek ndeysaan ñu may la ko nga móor yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla ngoog xéewal yàlla ngoog ndax bëri na yoo xam ne boo amutoon jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen néeg ñooy fobeere ñooy booleel seen bopp ñooy taal cuuraay ndeysaan sonn lool dana leen yàlla yërëm kon soxna xéewal yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne waskuru ni'matallahi aleykum fàttaliku leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi du jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu binde ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkalla waskuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala ak lii mu wàcce alaykum ci yéen minal kitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yore jabar mu ne loolu di xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngalit loolu xéewal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wattaqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar wa alamu xam leen ne anna allaha yàlla bi kulli shay'in alim lépp la xam lépp la xam la ngay seq ak ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli shay'in alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkalla yàlla ñu ci yàlla jàppale wa isa tallaqtum su ngeen faseetee an nisaa jigéen fa balax na ñu jot jege ajalahunna seen ab nga xam ne idda jaa ngi bëgg a jeex fala taadiluhunna bu leen leen gàllankoor an yankixna ba ñuy bañ a sëyëg azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isa taraadaw bu ñu dakkooree baynahum seen diggante bil maaruf ci njëkk ci fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak goro bi ak goro bi léegi nga may faj sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala boog tax ñëw ci kër gi waaye bëgg a delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fayda day tax góor ñeb la ba pare di xoññal jëkkër ji foog nga joxe nangam yàlla mu ne loolu ba ci yoon nekk daa bëgg a delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi xamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee genn góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba benn bisi rek waa ji ñu ànd ak si rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fab valise bi dugal ci oto bi waaw dem nañ fa nag ñeenti yoon ndeysaan di ñu jéem a fay li maa ngoom waaye gis nañu agsi rek nekk ca paa ba di ko nuyu rek seen ndaw si di jël bagage yi dugal ci oto bi wallaay ndeysaan roño roñ baax ñun nag waxuñ ci dara mun naa daa roñ doon agsi rek ñu ñëw nuyu maire bi rek dikk fekk mu dugg ci oto bi taal ba xaw ma dugg ci oto bi toog foofu ndoom si ñun tam ñu daan ñëw taal oto bi wut si Dakar yaa naan ko yaa xam boo meesee bul fi ñëw ñu dawal ñëw góor gi dafa ree bafam dafa ree ba sëriñ jullikaay ba waaw yàlla mu ne bu leen koy def fala taxduluhunna an yanfihna azwajahunna isa taradaw baynahum bil maaruf kii bëgg naa dellu si jëkkëram yàlla mu ne bul ko gàllankoor jëkkëram la bàyyil mu dem fase benn yoon sax du ñàkk jabar waaw zalika lii daal yuwaasu bihi ñu ngi ci waar man kaana képp ku nekk minkum ci yéen yuminu billahi di gëm yàlla wal yawmil axiri ak ku gëm alaxira képp ku gëm yàlla gëm alaxira ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tafatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yonentam wala a yàlla ak alaxira zaalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko kam bëgg wala buñ fasee bu bëggee dal ñu bàyyi ko mu dellu azka lakum loolu gën a sell ci yéen wa athar moo gën a set lii moo gën a neex a réglé wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yéen laa taalamuuna xamu leen yàlla rek a xam yéen xamu leen ginnaaw moo xam xamu leen nag ah bàyyi leen rek tabarkalla ni mu bëgg a tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag da ngaa fase jabar ji daa yor doom ju ndaw léegi bi nga ngéntee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmb nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nampal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ci dem ne ko téel sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase mu yóbbaale yàlla nee na wal walidaatu nay yi nday yi yurdi'na nañu nàmpal awlaadahunna seeni doom xawlayni ñaari at kaamilayni yu ma sëkk yurdi'na du du xabar maanaam du yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la wal walidaatu yurdi'na jumla inshaiya nay yi dañoo war a nàmpal awlaadahun wax ji it yàlla jàngalaala ci ne bépp doom bu juddu nàmpaluñ ko soowum nit du nite bépp doom ju juddu nàmpaluñ ko soowum nit du nite doom juñ nàmpal te nàmpal ga matut du am xel doom ju ñuy nàmpal nàmpal ga matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkalla sooy nampal gaa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan jëleen nampal sooy nampal mooy sa doom buy màcc sa ween dafa am ndox su ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu ca toqee la fa daan formé formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett bi nekk règle ndox soosu si cay toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle mu daan lay seral bu ma cee leen wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn wenn fii ngay gis règle nga nekk soo nampal soo ragalee di nampale wii fii ngay gis règle parce que neen wu amul ndox buy soq rek foofa la fay formé wu ci vingt huit jours nga daal di gis régal léegi moo tax boo bañee yàlla santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñiy liggéey ci bureau nef looloo ko jur léegi nag ñuy planifié moo tax mi ngi delloowaat nit ñi ci nàmpale leen seen ween gaaw parce que ween am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamoon nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa am lu bëgg la taxut dafa am lu bëgg benn ñaareel ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jarul ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jarul ñàkk ndax soow si muy njëkk a ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu ci soow si muy njëkk a macc te mu doon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat bitit yi ni mu war a mel ci boo nampalee sa doom ñaari weer yu ma sëkk mu suur kël kum bëreel daan la kum xalaata ndool raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mu doy fu mu bëriñ la bu soo mu doy fu mu bëriñ la waaw bu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole bu teelee ferit bu màggee ragal waaw namp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal walidaatu ndey yi yurdi'na nañu nampal awlaadahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma radaata mu matal namp gi jaar ci yoon an yutimma arradaata alif gi lam mooy nampal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nampalal ñaari at waaw soo nampalee ñaari at te nampal nampal bu jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis régal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire u règle lu war a mat trois mois wala quatre ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëmbaat ko defee loolu loolu la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joo xam ne ji day xeex moom it naan danaa génn de apart man ko doo génn de bu ko defee man danaa génn de doo génn de léegi nag lu ci monte ñëw sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee ci fi bu amee feebaru jabet nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram wi boo dugalee benn xaw ma siri léegi doo xaw ma lan sa yaram wi rek mën nga caa doxee dee ndax yàlla ni mu tëral bàyyi noonu rek yàlla ni mu tëral bàyyi noonu rek te ko yàlla rëddal fukki doom fukki doom a gën ci yow ku mu rëddal fukki ñaar fukki ñaar a gën ci yow ku mu rëddal benn benn gën ci yow ndax am na ko amul tus waaw loolu tax mu équilibré wu am na jigéen jigéen ñoo xam duñu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñuy am am ñu dul am buñu am te fexe ba xale jigéen ñi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it bu ñu am doom wa alal mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa alal mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy baay ji risquhunna seen wërsëg ñoom ndey yi maanaam boo fasee te nag muy baale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di wot it bil maaruf ci njëkk sa doom la yor di ko nampal ah léegi yaa ko war di jox dépense muy lekk ceebu jën ndax am soow jox sa doom waaw yaa koy jox li muy lekk ndax bu lekku du am soow kon yaa koy jox li muy lekk mu mën a nàmpal sa doom ji ci li muy lekk yaa koy wat it ndax mu mën a nëmbal sa doom ji weenam yi nga xam ne moom lay nàmp ba poussière bi di ci dem donc ñaari yàqu gadu dëkk waaye nag soo nekk ci xëy na ku yaa sa yooyu déedéet waaye li muy lekk ak li muy sol yaa ko gàddu yow mi ko fasee kenn yor sa doom ji nàmp ba baa muy fer bu feree nag salaamaaleykum bu feree salaamaaleykum la nga gàddu léegi mooy dundub xale ba dundub xale ba laa tukallafu deesul togg deesul teg nafsun benn bakkan illa wusaha lu dul la man maanaam yàlla du teg góor gi ne ko yaa koy wutal dëkkuwaay yaa koy jox dépense yaa koy waddu yaa koy jox lu muy dugge super lu ne mun yaa koy jox yàlla mu ne du ma teg kenn lu mu attanut waaye ñaar xam naa ne attan nga ko mooy jox ko lum lekk ak wutal ko yére foofu nag laay yem te it bu ci nekk nag bil maaruf waxuma nga koy wutal lu mu dunde ñu ne cent cinquante mille par weer mu yàlla mu ne waxuma loolu de waxuma it xotti ñu ne saka lay sol balaa muy feral waxuma loolu it bil maaruf rek ci njëkk laa tudaara kenn wërk lor waalidatun ndey bi waladiha ci doomam laa tudaara wërk loru waalidatun ndey bi waladiha ci doomam maanaam ndey wërk yor doom loru ca di ko nampal rek saa su nekk te amul lu mu lekk di ko nampal saa su nekk te rafle yàlla mu ne loolu wërta am laa tudaara wërta loru waalidatun ndey bi waladiha ci doom wala mawludun lahu bàyyi wërta loru bi waladihi ci doom ñoom ñaar kenn wërta loru ci doom ji bàyyi wërta waruñu koo def loolu mënut waaye ndey waruñu koo def loolu mënut moo tax dagg sol du bàyyi di jox doom daganut dagg sol du bàyyi di jox doom daganut bu fekkee ne ëpp na lu muy dunde ndax ndaw si gëdduwoo ab dundam doom ji rek nga gàddu ab dundam bu fekkee day nàmp nag yaa gàddu li ndaw si di dunde ba mën a nàmpal sa doom loolu la lislaam wax bil maaruf ndey ji bu mu loru baay ji bu mu loru laa tudaara waalidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala alwaarisi war na ca tay doon nit misle zalika lu tol noonu maanaam képp koo xam ne su doom ji dee woon bu ñuy séddale miraas ma da nga ci am cër su fi bàyyam nekkut war ngaa gàddu nampal gi ba mu àgg képp koo xam ne bu xale bi dee woon bu ñu koy miraas da nga am cër ci alal ja su fekkee bàyyam daa faatu ba mun ko fay femme bi lu ko nampal yow yaa war a ñëw fay lu ko nampal wala bu fekkee ay mbooloo lañ ñoom ñooy cotiser luy nampal xale bi wa alal waarisi mislu zalik tabarkalla fa in araada bu ñu bëggee nag jëkkër ak jabar fisaalan feral xale bi am taraadin ci d'accord ci minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashaawurin ak diisoo fala junaha alayhima bakkaar nekku ca ñu feral xale boobee ñu feral xale boobee maanaam ñaari at yi ma tëggut baay d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waaye bu ñaari at yi ma tëggut bu baay d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral foofu tam lu jar a bàyyi xel mooy fa in araada bu ñu bëggee xifaalan feral xale bi an taraadin ci d'accord minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashaawurin ak diisoo fala junaha alayhima bakkaar ni ko ci ko defee ñu ne ah nañ ko feral ndax nangam dafa wéradi wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaa ji ne damaa sell were maa feebar ci ween yooyu léeg-léeg jigéen ñi dox tappale naan damay feral ndax sama soow doyut loolu moom du dëgg saa boo déggee ñu ne soow mi doyut du dëgg soow mi baaxul du dëgg xanaa ween yi am taab wala ween yi am taab loola booba feebar moom dak mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doyut loolu dëgganut yaa ngi lor ak jaambur te it yàllaa ko defaral soow moomu ci sa ween yi moo tax soo ko xañee rek am la yàlla xañ soo nampalul rek daal di am problème benn say ween ne gugg maa nga def léegi moo tax neef du feebar du yàlla teg jigéen neef mook sida ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku neef moo ko teg boppam waaw képp ku sida moo ko teg boppam saa boo bañee nampal rek da nga def ndax liy ñot bi lay def lee mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la félil wala xalila buy tee nga mer joxu ko soow bi du ko man jox tag wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy seen soxna sii nanguwut a nampal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal ko an tastardiu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amuleen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nampalal mu ne trente cinq mille par weer quarante par weer moo xam bu ngeen ci d'accord nga fay mu tàmbalee nampal waaye fay nit mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la fay nit mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la loolu la ay wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nampewul makka ma nga nampe ca albadiya namp soowu nit ku ñuy wax xalimatu saadiya namp ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullah boo ko dégloo ci digg arab su waxee ba natt nga xam ad islam dépp bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba natt ci digg arab su nattee rek yow boo déggee arab da nga xam ba xam yonent bi ko waxoon lépp suñu yokkee noonu beneen misaal da nga dégg ko ne xaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne bu muslimatin rek ne ko dégg déggoo arab yonent bi waxul loolu te sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit lu ci indi bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax mu muslimatin bokkul ci hadis sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waral mooy dafa nampa ci nit xale yi namp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàlla léegi sax nga dégg naan sama olof léeru dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nga wattaqullaha waay waay ragal leen yàlla waalamu ngeen xam ne anna allaha yàlla basirun kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirun ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër jeeg jabar ji lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tappale yi ci am njuuj njaaj yi ci am wallahu an allaha bima taamaluna basir na nga commencé si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg sol dem jox la waalamu an allaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkk sa jabar waalamu an allaha bima taamaluna basir wallaay moo tax ku ragal yàlla moo mën a sëy waaye ku ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom ah yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër soxna si demal ne fukaab bu mu joxee dépense bi mu ne nee ko na débrouiller